waaw kay euh, jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi kon nag euh, gis ngeen ñi ngi ba tey rek ci li nga xamante ni moom mooy euh, inauguration bii nga xamante ni moom mooy juma bu Poroxaan kilifa yi nag ñoom ñëpp teew si nañ dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni léegi Serigne Cheikh su yëkkati na ko kon nag ba tey rek xam naa ni dañuy xaarandi ñi nga xamante ni rek moom mooy waxtu wi jot. su ko defee ñu daal nag joxe waxtu wi nga xamante ni mooy waxtu jumaa ji bu njëkk dafa mel ni ki sax euh, imaam euh, mel na sëñ sëñ sëñ Fallou bu sëñ Abdou Khadre mel na moom mooy imaam bi mu ngi noonu kon installé wu na kon nag du def lu dul rek euh, daal di demaat ànd ak waa régie dem ci biir jumaa ji fekk ji Serigne Fallou Mbacké moom Cheikh Abdou Khadre mi nga xamante ni mooy fas yéene doon suñu imaam tey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 رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا للصلاة الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات نادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعده من أهل التوفيق أما بعد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 دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات maqaamu rasi fi aadaai daat fa farrigu laha alquluba mahalla nadari rab wa tahhiru laha thiyaaba wal ajsaada tafuuzu bilqabuli walqurb inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala dikrullahi akbar wa fi lxadiis buniya al islaamu ala xams shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami alsalaa wa itaai zaka wa xajji lbayt wa sawmi ramadan rawahu albuxaariyu wa muslim yaxfiru llah yaxfiru llahu lii wa lakum wa li jamii almuslimin amin